li fi gën a ci wàllu xibaar coow li nga xam ne moo am ci joxeb ceeb bi ak yóbbu ko ci biir réew mi mel ni lu xaw a yëngal président de la république Macky Sall ne lii moom euh, jaaru ko fi ndax booba ñu ngay def yeneen yoo xam ne ngir dimbali askan wi la comme coow li mënoon naan mënoon nañ koo teg ci suuf teewul it nee na dina sos kuréel goo xam ne mooy saytu koppar yi ñu tekk ngir xeexee ko feebaru coronavirus waaye itam dimbale ko askan wi te kuréel googe ka ko nar a jiite moo di koo xam ne farul fenn jengul boole ci tam waa assemblée nationale waa société civile ba ci opposition bi mu ngi ko waxee nag ci ab waxtaan wu mu sekk ak suy naatango yu RFI ak France 24 président de la République ne bu ko jaree tam couvre-feu bi dinañ ko gën a ci ngoon ba 7 ci suba moom nag nee buñ ca neree yegg dinañ fa yegg waaye mi ngi dépendre nag ci tolluwaayu feebar bi ak nu muy doxee ci biir réew mi di ngeen déglu li nga xam ne moom ci boppam indi na ko ci situation bés bi nag ak ñetteelu nit boo xam ne ñàkk na bakkanam ci Covid 19 bi muy ab góor gu toll ci juróom de soins bu Ziguinchor bañ ko doon euh, toppatoo euh, ci biir xibaar yi su naatango Abdourahmane Diallo dinañ ci gën a gindi euh, bu ñu jeexalee nag Pape Mante Mboup dina yëngu ci wàllu tàggat yaram indi ñu ci ay leeral rawatina ci jamonoy coronavirus bi nga xam ne ci lañ toll si moo fay fas leen faram xibaar yi daaw di jiba ci wàllu xarala gi bisimilah daleen nag jàmm salaamaaleykum mbokki déglukat yi Macky Sall démb la joxe xibaar bi ne dina sos ab kuréel wala sax sos na ko kuréel goo xam ne mooy saytu koppar gi ñu tekk ngir xeexee ko feebaru coronavirus eh, dimbale ko tam maskan wi nga xam ne ci jamono ji ñu bari tënku nañu ngir jàppale leen ci wàllu dund ak yeneen yu mën a seeni seen i dundin eh, muy ne nag kuréel googe ab. kilifa goo xam ne farul fenn jéngul fenn xamewuñ ko fenn moom moo ko nar a jiite te ci kuréel googee dina ci bokk ay député yu assemblée nationale waa société civile ba ci opposition bi njiitu réew mi nag mu ngi ko waxee naka démb ci ab waxtaan wu mu sekk ak suñu naatango yu RFI ak France 24 muy xam le ne lépp dina leer euh, buñ fa yeggee lépp daal dina leer muy wax noonu ci coow li nga xam ne moo am ci joxe pa ceeb bi ak lu ko yóbbu ba mu yegg ci biir askan wi euh, rawatina ci jamonoy coronavirus nag dafa mel ni xaw na xaw na yëngal président de la république Macky Sall ñu déglu ko ci ay kàddu yoo xam ne Pape Mante Mboup moo ñu ko euh, firam fàcceel. lorsque nous attaquons des sujets d'importance qu'on veuille nous ramener vraiment vers euh, disons au ras de pâquerelle. lu may naqarlu rek mooy ak situation bi nga xam ne ñoo ngi koy dund ak biir jàngoro di coronavirus. ñu yëkkati ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn ay mbiru transparence ci gestion bi ma jàpp ne wax ji jip ci xeex bu ñu nekk amul ci place nu ñuy doxalee mbir mi jamono ñu toll ni amul lenn lu ci lëndëm li koy firndeel rek taxawal na ab comité de pilotage bi nga xam ne ki ko fas yéene jite farul fenn te parlement bi ñëpp ciy bokk lépp rek ngir wane ni lépp am transparence ci lu ñuy def amul lenn lu fi lëndëm loo xam ne danañ ko nëbb askan wi. indépendante qui va le diriger mais aussi le parlement dans ses différentes composantes la société civile l'opposition tout le monde sera représenté. président de la république tam bañuñu ko ci ba yokk couvre feu bi jàll ko jële ko six heures ci ngoon ba sept ci suba mu ne nag mi ngi dépendre ci nan lay feebar bi di continuer ci biir euh, réew mi rawatina nag transmission communautaire yi nga xam ne ñu ngi ko ci tàmbalee nemmeeku te mu commencé jaaxal waa kër docteur ak comité de gestion bi nga xam ne mooy taxaw ngir xeex wàllu épidémie ci biir euh, réew mi président nag nee na buñ fa waree yegg dinañ fa yegg nag bañu ko ci ba jël yeneen mesures yoo xam ne ñoo gën dëgër yi nga xam ne moom la ñu jëlagum ci jamono ji ñu dégluwaat ko La première mesure a été la fermeture des établissements alors que nous étions à moins de vingt cas. mesures yu njëkk yi ñu jël léegi mooy tëj aéroport yi tëj école yi tëj fépp fi nga xam ne rek ñu jógee ca tugal duñ fa mën jaar loolu moo tax sax amatuñu benn cas importé ci jàngoro bi di coronavirus bañ sa jógee nag ñu def lii di couvre-feu état d'urgence vingt heures jàpp euh, six heures du matin ak cas yu yees yi communautaire yu ñu gis nag boo moyul dinañ nag changer mbir mi def couvre-feu bi à de dix nak amul benn coppite bu am ci mbir mi ni mel boo moyul nag dinañ gën a nag taral xeex bi def nag confinement général. confiner totalement tous les contacts. mais si demain on devrait y arriver on le ferait mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Euh, kàddu yooyu président de la république mu ngi ko yëkkatee ci ëtt yónnekaay yu nekk ci biti li mu wax nag am na solo te mbirum Sénégal soxal euh, lu tax nag euh, yeggeewu ko presse bi nga xam ne moo nekk fii ci biir réew mi di yëngatoog moom ci bokk tam li nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk xeex Léopold Tamba. ci janoom ak journaliste yu France 24 njiitu réewum Sénégal gannaaw ba ko yooyee taskatu xibaar yi amal laaj ci mbirum transmission communautaire bi tàmbalee yaatal géewum ci mim réew moom Macky Sall daa xam ne ni su dee cas yi soqeekoo ci transmission communautaire moo ngi wéy di law daa yokk waxtu couvre-feu bi maanaam doore ko juróom-benn waxtu ci ngoon jëmale ko ca ëllëg sa ci juróom-ñaari waxtu ci fajar cuy xibaar gi ni toll doonoon na gën a taaru nag suñu ko jagleloon taskatu xibaar yu mim réew. ñoom nga xam ne ne boobak léegi ñoo ngay liggéey ak nguur gi ci mbirum mbas mi moo ne day amut benn njiitu réew Europe bu koy nangul journaliste yi nga xam ne ne ñoo nekk Afrique ndax respect bu ñu am ci seeni journaliste lu ko dalee Senghor ba Macky Sall donte askan wi monkee ñàkk rafetlu teewut ñu mooy ci yile doxalin nga xam ne ne day niiroo ak xeex boo xam ne ne dagay ngay xeeb sa ndono Paul Tamba démb ministre bi ñu dénk développement communautaire équité sociale ak territoriale Gallo ci jamono ji sedd leen ndimbal mi ci biir réew mi wax na lu jëm ci marché yi euh, joxe ceeb bi ak la yóbbu ci ndakaaru ak fépp ci biir réew mi Mansour Faye joxe ci ay explication ne ni ñu joxe yëf yi dañ ko tekk ci yoon te société yëpp yi nga xam ne si nañu ak ñoom ñoom ñëpp la leen war tam ñu ngi koy matale ba mu mët sëkk rafetlu tam taxawaayu yenn camionneur yi nga xam ne ne seen i ay jumtukaay camion yeeg dërëm ngir ñu mën a yóbbu dund gi fépp fuñ ko soxlaa ci biir euh, Sénégal euh, waaye nag euh, mu xamle tam ne li ñuy soxla ci camion bés bu nekk jë mët na juróom benn téeméer ngir dund gi mën a yegg waaye Mansour fay ak kàddu yooyee plateforme à avenir Sénégal bi ñu bëgg ne daal doyu leen des na yëf yi leer ci ñoom organisation bi ci ab communiqué boo xam ne yeggeen nañu ko ne ministre bi ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko naka démb am na ba léegi laaj yoo xam ne tontu ci noonee tam indiwul ay explication yu leer euh, ci mm, payoor gi nga xam ne moo jëm ci wàllu transport marchandise yi ci biir euh, diwaan yi ak euh, tam jamono ji nga xam ne yenn transporteurs yi ñu ngi doon sàkku ñu abale seeni camion te kenn du leen fay dara faalewu leen bool ñoo nag doolee ko ci ci li nga xam ne état bi waroon na koo mën a def ndax ne état bi amoon na doole ak sañ-sañu réquisitionné mbooleem camion yi nekk ci biir réew mi dolli ko ci armée yi ngir tam dund gi mën a yegg fa ñu ko soxla plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg xalaat ne kon comité de pilotage bi nga xam ne président de la république wax na ne taxawal na ko bu boobaa tam war na xool marché yi nga xam ne joxe nañ ko ndax lépp leer na ndax lépp tegu na ci yoon ak tam qualité ceeb bi nga xam ne moom la ñu ne commandé nañ ko ba fay entreprise yi war ko joxe ca anam ya gën waa FDS force démocratique euh, du Sénégal ñoom tam ne kàddu ministre bi doyu leen ay explication la yoo xam ne daal euh, am na lu bëri loo xam ne leeru ci dafa sax yokk lëndëm euh, rawatina ci conditions yi nga xam ne ci la ñuy joxe marché ceeb bi ndimbal gi nga xam ne moom la nguur gi yéene yóbbu ci biir askan wi ndax ne ay homme politique ak i borom affaire yoo xam ne ñoom ñoo ci jot te ñoom xalaatul lu ñu dara lu muy seen poste xalaatuñu askan wi docteur Babacar Diop ak i moom xalaat ne yoon war na cee indi ay gindi ngir scandale boobee bañ fi amati te ci logique sax tax ba waa FDS yokk yeggee waa OFNAC ñiy xeex corruption ci biir réew mi ab bataaxal ngir ne ñu enquête ci njoxema ceeb bi ak lu koy yóbbu ba mu yegg ci askan wi enquête boobe nag ñu war cee saytu mbirum Mansour Faye ministre bi ak Demba Diop si miñ ci tudd ci wàllu yóbbu bi ak Rayane Hachem kenn ci homme d'affaires yi gagné marché ceeb bi front waa frappe France dégage ñoom tamit euh, yëglu ndax ne yeggee nañu waa waa OFNAC ab bataaxel boo xam ne tam ci la ñuy bëgg ñu saytu mbirum Demba Diop si patron bu urbaine d' entreprise du UDE mi euh, bokk ci ñi yóbbu ceeb bi ak euh, tam Mansour Faye mi ministre bi nga xam ne ci jamono ji programme bi mi ngi loxoom ndax ne euh, seen diggante daal lëndëm na ba pare nag bu ñu sukkandikoo ci wàllu yoon code électoral bi tere na ko ak article 113 bu règlement intérieur bu assemblée nationale Guy Marius kon sàkku ci waa OFNAC ñu leeral loole ndax passation de marché euh, huit heures jot ba tegal fukki simili. ñu ngi ko testé positif talaata bi ñu génn ñu ba dugaloon ko ci centre de soins bu Ziguinchor ngir faj ko démb la ñàkk bakkanam muy ñetteelu bakkan boo xam ne rot na ci Sénégal te feebaru coronavirus waral ko muy euh, loo xam ne am na ñaari ay bés ginnaaw euh, cas bu mujj. ñàkk bakkan boo xam ne amoon nañ ko fii ci ndakaaru bi yoon nag muy ab góor juróom benn fukki at ak ñett la toll ca ay leeral Abdourahmane Diallo mu nga ca Ziguinchor situation bu ñeel wàllum covid 19 di gën di compliqué ci bëtu saalum réew mi vendredi bile benn nit ñàkk bakkanam ci feebar bi li di coronavirus victime bi doon ab góor bu amee 63 ans te dëkk ci quartier bu Lindiane ci Ziguinchor moom moomee ñu ngi koy testé positif ci coronavirus mardi bi ñu jénn di ab contamination bu jógee ci transmission communautaire information bi li autorité administrative yi di ko dëggal tey nag mën nañu jàpp ne mu ngi amee ci lu toll ci six cas confirmés ci coronavirus ñu ràññee ci kenn ki nga xamante ne ñàkk na ay bakkanam ñetti patient yi nga xamante ne wér nañu ak ñaar ñu des ca l'hôpital régional ñu leen di faj ñaar ñooñee benn góor la ak doomam te ñu dëkk ci benn quartier périphérique bu Ziguinchor ñaar ñooñi ñu ngi leen di testé positif ci coronavirus jeudi bi ñu génn te ñu bokk ci cas contact yi nga xamante ne moom la service de santé yàgg di topp. Abdourahmane Diallo doon jokkoo ak yéen ca Sigicoor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo transmission communautaire yi moo jaaxal askan wi jaaxal waa Kër Docteur jaaxal comité bi nga xam ne mooy saytu mbirum épidémie fii ci biir Sénégal ca commune bu yi maire ba tàmbale pa jël ay matuwaay ngir ne ñu mën a fexe gàntal fexe coronavirus wër ko ndombo fii ci sunu biir réew a Jibril Wade di sàkku ci askan wi rawatina ñu féete ca commune am mesure barrière yi maanaam ku ci nekk na nga war a moytoo ko diglee tam nga def ko noonee waaye moom tam bañu ñu marché nga xam ne ñoo fa ne ndax foofee nemmeeku nañ ne ay béréb dajalukaayu nit la soxna Fall. coronavirus mi ngi law cas communautaire yi moom mi ngi am ak yokkute mairie Biscuiterie yi am ci ak njaaxle. compliqué compliqué. jafe na jafe na lool ci jamono joo xam ne dañoo war a xeex ak benn ennemi boo ko xam. ci jamono joo xam ne crise sanitaire dafa am mu ni dinañu jël yeneen dogal lu jëm ci marché public yi. ñun nag dinañu dajee wax ñi ne ci marché yépp ñuy takk ay casque mu jaree génnee arrêté sax ñu génnee ko. c'est la mesure qu'il faut mu ñëw ci occasion bi nag daal di joxe ndimbalam ngir ñu xeex bi li jàngoro directeur bu asalaar moo fa jaar. li def du ñu ne ñoo ko war mën def nit ñi ñoo ci war ñoo ko ci war a jiitu ñu fekk si leen si. mooy képp kuy citoyen rek tey si jamono bi ñu toll war nga mën taxaw mais seetal lan laa war mën indi réew mi lan laa si war mën jàppee waaye nag ñu gëm ni itam dañu dem si guerre dañu dem si combat. élan de solidarité bi ngir fexe ba lilee jóge fi ba faawu ñu ngi koy wéyal mu di bonne volonté yi wala autorité yi ku ci nekk ñi ngi joxante loxo ngir xeex jàngoro yi covid 19 soxna Fall ndimbal googu am na yenn njaboot yoo xam ne xëy na njortu wu ne am nañ ko ndax ñoom ñu ngi féete ci ay quartier yoo xam ne ne ay boromi barke ñoom ñoo fa dëkk waaye ci biir quartier yooyee am na ci ñoo xam ne seen loxo xaajul bay jot seen i ginnaaw te yeelee situation bu amee nii ñoom dañ leen di xaw a fàtte fu ci mel ni fànn ok nga xam ne am na fa njaboot yoo xam ne daanaka seen loxo jotul seen seeni ginnaaw ñoom ñooñe nag di fàttali askan wi ne tam ñoom war nañ leen cee mën a boole Tidiane Diallo doxantu na ba fànn reportage. famille yu néew doole yi nekk ci quartier résidentiel yi ñoom parfois dañ leen fàtte ci dimbali El Hadj Mamadou Guité atam tolloo ci nekk délégué de quartier Fann mu koy dëkkal. di nga am doole te doo ko gis. am nañu fi dépense vingt par jour am nañu dépense vingt quinze. ay dooleem antan na ko. ñeneen ñi ci des am na ñoo quartier yooyu ndax am na ñu fay dëkk dañoo néew dool ñooñu laa bëgg ñu am priorité absolue ñu dimbali leen loolu laa wax wax naa la ko léegi kilifa gi nag mu ngi woo askan wi ñu toog seen kër ngir limiter contamination jangoro bi premier point boobu ñëpp nañu toog seen kër ngi ñëpp ndax àdduna yëpp day wëndeelu ku toog ci luy wëndeelu dafa nga wëndeelu ndax ngelaw a ngi ci biir ca quartier résidentiel yi borom jaboti néew doole ñu ngi xaar ndimbalu nguur gi Tidiane Diallo ci ñi nga xam ne tam feebaru coronavirus bi laal na leen ak ni nga xam ne noonu lañ ko taxawoo jafe-jafe yiñ ci am bokk na ci ñi nga xam ne ay boroomi école lañu ay franco arabe yu nekk ca yëmbal sud ci biir banlieue bu ndakaaru ci jamono ji jafe-jafe leen dab ndax ba fi mu nekk nii jàngalekat yi yenn yi fayekuwuñu ba pare nag béréb ya nga xam ne fa la ñu sanc seeni daara ñu bëri moomuñu ko dañ koy luyee te ba léegi fayaguñu ko seeni collectif bi nag collectif fu école franco arabe yu yëngal yëmbal sud di sàkku ci président Macky Sall ak gi mu bàyyi leen xel ci jamono ji nga xam ne tam ñu ngi dimbali askan wi ci jamonoy coronavirus bi ñu toll Mayoro Samb di coordonnateur collectif bi wax na ci ak Younoussa Baldé. déedéet ñun ndimbal yooyu sax taxul ñuy wax ay ceeb ak ay dund ak ay et cetera ñun li ñu gàddu moo tax ñuy wax. waa ci période bi école xam ngeen ni li gàddu kërug lëmm te borom aj aj ci ay soxlaam xam nga ni kooku du la may dara depuis la kat ñu ngi toog salaire amuñu ko parents yi bu ñu gisul école bi di doxal ay activité seen dërëm du ñu ko génnee di ko joxe fi mu nekk gis nga personnel bi ñu ngi toog tooguñu ci seen coobaree bopp nattu la bu fi yàlla indi wan ñi nga xam ne ñooy autorités yi ba ci président de la république nag ni ko ñi ngi fi nañu bàyyi xel bu baax ci lii nga xam ne moom lay def ñu te ñun masuñu ñoo dégg ñu wax benn yoon wala ñu kaas benn yoon coronavirus bi tam bàyyiwul benn secteur d' activité ca Mbour tailleur ya bokk na ca ña nga xam ne sonn nañu lool ginnaaw bi nga xam ne ci jamono ji dajaloo ci ay xew xew njaboot wala xew-xewu askan wi yëpp tere nañ ko te ñoom seen i wërsëg ak seen i teranga ci yenn xew-xew yooyu lañ ko doon amee responsable association bi ñu tabax euh, taxawal di ànd ndimbalante bu tailleur yu Mbour ñoom it indi nañu teewul indi nañu seen i wàll ndax am nañu yéene euh, ñaw lu tollook fukki junni masque yoo xam ne dañ koy séddale ci askan wi ngir jàppale leen ñu xeex feebaru birus waaye nag lii dafa ñëw dooleeku ci leneen ndax ñoom marché yi dañ koy teel a tëj léegi bu 3 heures jotee benn marché ubbeetul foofee tax na nag seen i teranga ak wërsëg wañ doon am bés bu yàlla sàkk wàññeeku noonu lool waaye nag ñuy sàkku tam ci nguur gi mu jàppale leen ci facture Senelec yi ak yeneen yu ni mel ndax waa Senelec yenn facture yi euh, weesu na te ñoom fayaguñ ko ñu bëri tam fa ñu ne dañ ko luye te fayaguñ ko loolu yëpp laaj xeetu ndimbal yoo xam ne yëkkati nañ ci seen i kàddu Mouhamed Ndim Diouf di secrétaire général ànd ndimbalante bu Tailleur yu Mbour waxtaane ceeg Pape Dieye. en tant que tailleur xeex bi ñu ci mën a xeex mooy góorgóorlu ci masques yi comme ni mu ko waxee trente millions de masques la bëgg. bu soobee yàlla am nañu yéen a def dix mille masques instant bi ñuy def entretien bi nii quinze heures jot na mais boo xoolee indi ñu ci marché bi yëpp dañoo tëj euh, tàmbalee ci biñ ne xew yi darul am te tailleur ku ñu xam ne ne xew xew moo fi ci li muy liggéey buñ teree xew yi rek da ngay xam ne ñun dootuñu liggéey euh, métti na trop nag cantine yi ñu ngi koy fay ba léegi. facture courant yi am na yoo xam ne ñu ngi fi sax ñu ngi egsi ci échéance ba léegi mënatuñ koo fay foofu tamit soxla nañ ci dimbalu Senelec mu xool nan la ñuy dimbalee ci facture yi ndax dafay def ay moratoire wala day yokk délai bi ndimbal bi artisan yi soxla nañ ko bu baax a baax a baax. bi muy lim dañoo déggul euh, benn yoon mu lim artisan yi. ñu taañaañal dem ba Guinée foofee président bu commission électorale indépendante bi moom moo ñàkk bakkanam maître Amadou Salif Kébé démb la ko def ci hôpital bu Donka nekk ca Conakry feebaru coronavirus moo ko tëraloon taxoon ba mu toogoon këram sax ay fukki fan ci ginnaaw ginnaaw ba nga xam ne yóbboon nañ ko hôpital fukki fan ak ñeent weeru avril hôpital CHU bu Donka muy hôpital boo xam ne sax dafa taxaw lool bokk ci yi gën a fës ci xeex feebaru coronavirus foofee ca biir réew ma yaramam nag moo ko ko mayuloon te njor nañ ca tam li ko yóbbu bokk na ci amaana beneen feebar bu mu amee woon muy jabet bi buñ sukkandikoo nag ci kenn ñu jege présidence bu Guinée waxtaan ci ak suñu Salif Kébé ña ko wàll bokk na ci ay observateur yu société civile Afrique yi nga xam ne ñëwoon nañu Guinée ngir saytu élection ba fa amoon ñaar fukki pan ak ñaar ci weeru mars wee ñu génn te kenn ci ñooñee sax ba léegi mi ngi ci loxoy waa kër docteur ñu koy faj Guinée nag bii mooy ñetteelu nit boo xam ne ñàkk na ci fee bakkanam ci feebaru Covid 19 Guinée toll ci ñeenti téeméeri cas ak fanweer ak juróom ñett eh, ak ñeent fukki nit ak juróom ñeent ñoo xam ne nañu ci bésub fukki fan ak maanaam démb. wàllu tàggat yaram ñu ciy dalal Pape Mantoumb Pape salaamaaleykum. aleykum salaam Pierre Simon Faye. waaw Baba Tandian ci basket moom lu mu def ba ñu naat ko yóbbu commission de discipline altine. ah en tout cas daal bu ñu sukkandikoo nag ci fédération sénégalaise bu basketball kii di président bu Saint-Louis basket club di Baba Tandian dafa nag yëkkati ay kàddu yoo xam ne dafa xajam jëmale ko nag ci fédération bi moo tax na nag mu fas yéene nag taxaw ni ki lundi ci kanamu commission de discipline bi moom sax ni ki démb si àjjuma ji na nañ ko nag bind ab ci li ni mel waaye nag dafa bañoon loolu moo tax nag ni ki leen di nag mu fas yéene taxaw ci commission de discipline bi ngir nag wax yenn i kàddu bi mu yëkkati jëmale ko euh, ci fédération bi euh, fan la ko euh, jëlee ak lu tax mu yëkkati ko teg ko si ndodd ñii di waa fédération basketball bu Sénégal Euh, ci wàllu coronavirus bi nag ak Italie fédération ba moom bëgg na gën kaa sore bu ñu duggee ci weeru juin championnat bi tàmbaliwaat. waaw yooyu nag mooy kàddu yi nga xam ne moom la président fédération bu euh, Italie yëkkati di Gabriel Gravina mu jàpp ne nag bëgg na lu mu néew néew daal ci nag euh, bu ñu jeexal weeru mai gi ñu tàmbali wala nag ci ndorteelu weerum juin ñu tàmbali lu jëm ci wàllum championnat bi mu jàpp ne ndax foofu ca Italie faw nag nag waajalaat seen bopp bu baax a baax bu ñu gisee ni ba tey nag di di coronavirus moo ngi wéy di def foofu noonu ay musiba ci Italie ñu jàpp ne sax euh, waaye am na club yoo xam ne ñu ci mel ni Brescia ak Torino ñoom nag ànduñu benn yoon ngir nag ñu tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat bi ndaxte ville bu mel ni Brescia bokk na euh, ci ville yi nga xam ne ñoom la bi la jàngoro di coronavirus gën a laal foofu ci Italie. Angleterre tamit waxaguñu lenn lu jëm ci tàmbaliwaat championnat bi Premier League bi rawatina ndax ndaje bi ci amoon naka démb daanaka benn dogal tukkeewu ca. waaw démb nag lañ doon jàkkaarloo si seen biir ngir nag waxtaan ci yenn décision lañu fas yéene jël ngir nag tàmbaliwaat lu jëm ci championnat bu Angleterre sanitaire li nga xam ne tamit bañ ko aji léegi mat na weer ak lu teg li ko waral rek mooy jàngoro di coronavirus waaye ñu jàpp ne ba fii amagul benn décision bi nga xam ne nag ñii di euh, waa Premier League mooy club yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Angleterre jël nañ ko ngir nag tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat bi waaye nag ba tey ñoom seen bëgg-bëgg mooy ñu euh, jeexal ko ndaxte nag suñu xoolee ci wàllum nag euh, koppar am na si leen loo xam ne bu ko jeexal rek dina nag indi ngaañ jëmale ci club yi ñu fàttali foofu ci Angleterre lu jëm nag seen ba juróom-ñaari fan eh, ci weeru mais balaa boobu nag ñu xool fan la jàngoro ji a toll foofu ci Angleterre. kon si Pierre Faye fii la ñuy fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum tàkk jëm waaye nag tàggoo ñu ndax yi dinaa tuuti café mën nañ dem naan ko waaw maa ngi lay xaar <laughs> jërëjëf yow Daouda Diba kon nag mbokki déglukat yi lii moo nekkoon xibaar yi nga xam ne moom la ñuy indi tey jii suba si taataan noonu ci gën a ci kàddu ko njiitu réew mi ci coow nga xam ne moo wër njoxem ceeb yàgg lu ko yóbbu ci biir uh, askan wi Macky ne coow moom mënoon naa ñàkk ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne uh, réew mi yëpp mobilisé ku ci nekk indi wàllam ngir tam ñu xeex feebaru coronavirus coow uh, li nag moom dina dakk nag ndax ne teg na goo xam ne mooy nar a saytu koppar yañ koo jagleel comité boobee ku jéngul fenn farul fenn moom moo ko fas yéene jiite ànd ci ay député société civile ba ci opposition bi président de la république yëkkatee kàddu yooyu ci ab waxtaan wu mu sekk waa RFI ak France 24 sunuy naatango président la république ne bañu ko ci bu fekkente ne situation bi laaj na ko ñu yeewiwaat couvre-feu bi gën ko yaatal diggante 6 heures ci ngoon ba 7 heures ci suba mi ngi dépendre nag ci nan lay feebar bi di taxawee xam ne Sénégal am na ñetteelu bakkan bu ca rot naka démb muy ab góor gu toll ci juróom benn fukki at ak ñett démb la ko def ca centre de soins ba nekk ca Ziguinchor euh, sunu correspondant Abdourahmane Diallo indi na ci ay leeral ñuy gërëm Daouda Djiba mi féetewoon ci wàllu xarala bi si moo fay doon leen faram-fàcceel xibaar yi yeneen xibaar ci kanam lay doon ci bëccëg bi bu leen fàtte 10 heures ñu indi laata leen tolluwaay feebar coronavirus bi ci biir réew mi xibaar yi ci doonaat incha